asalaamaaleykum mbokk yi jàkkaarloo ñu seetaan di ànd ak seen sit internet euh, murit point info moo ngi nuy kenn ku nekk turam ak santam ci di leen ziar baax mu mel ni nag euh, su ngeen gisee image yu am solo yi nga xam ni gis ngeen ko mu mel ni ñu ngi ci seesu APR bi nga xamante ni moo nekk fii ci euh, dëkk bu sell bi di Touba. ñu ñëw nag fekk fi ku nga xamante ni yaakaar naa histoire ci wàllu politique. lu am solo la waaye dina ñëw gën cee leeral tuuti ci kanam incha allahu rabbi mu di sëriñ Modou Mbacke Bara Dolly xam def mooy damay jébal kàddu gi sëriñ bi mu nuyoog mbokk yi nga xam ñooy jàkkaarluñ ci di ñu seetaan euh, su ko defee nag ñëw ci waxtaan wi Modou wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu euh, ñu ngi leen di dalal fii ci seesu APR bi nga xam ne euh, coalition taxaw Macky Touba moo ko taxawal mu doon foo xam it pour euh, toutes les responsables de APR ñun ñëpp ñoo ko bokk parce que loolu lañ def table bi ci bi di wax ne it ñu ngi ci liggéey bi depuis quelques jours yoo xam ni nii ñi ngi dox ci biir dëkk bi di tasaare li nga xam réforme bi naka lañ ko yan anam moo ci nekk ci wàllu liggéey bi nga xam ne président Macky Sall ci ñu taxawal ko mu doon loo xam ne nii ëllëg ak si biir kenn dutu ko mën a jalgati loolu nag bari na ay wuute yu ci am euh, yoo xam ne bala ñu ci jàll am na lu ma war a jiital mooy toujours dama ko jiital ci samay wax euh, muy ñun murit danoo baaxoo fu ñu ubbee suñ bunt rek ñu ñaanal sëñ Sidi Maxtaar mu yàgg fi loolu ci weer kon maa ngi delluwaat samay kàddu di jiital ci ne ñu ngi ñaanal sëriñ Sidi Maxtaar mu yàgg fi loolu ci weer di wax na it ni ñu ngi ci ay ndigalam ay ndigalam mooy lépp loo xam ne ni moom la bëgg ci dëkk bi lépp loo xam ne moom lay teree ci dëkk bi lam ci bëgg ñu fas yéene koo def lam ciy teree ñu fas yéene koo moytundiku moo tax lenni politique duñ ko defee biir moo tax seesu APR bii ñu def muy ñu def ko ci biir suufu su Mbàkke kon loolu ñu ngi tàmbalee wax ji foofu beneen bi ci des it muy liggéey bi nga xam ne moom la def. muy bi ci jiitu ñun dañoo anticiper ndax président dafa yëkkati journal officiel bi bis bi mu njëkkee génn ñu jullindoo ak moom ajjuma ci biir pale bi jullindoo tusbaar ak moom wàññiku mu yëkkati journal officiel boobu teg ko ci sama loxo na ma na ngeen ko tas ba nga xam ne mboolem sénégalais yi danañ xam lan moom laa wax ca lan moom la tënku loole def nañ ci liggéey bu mag boo xam ne nii tasaari nañ ko fii ci tubaa dem nañ Mbàkke Kajoor tasaare ko fa ci màggal ga dem nañ Taïf tasaare ko fa biir tubaay it tasaare nañ ko fu bari pour leeral ne yu bëree bari yoo xam ne opposant bi ñu ngi koy wax dëppoowut ak li nga xam ne mooy li nekk ci journal officiel boobu dëppoowut ak li nga xam ne moom la président Macky Sall bëggit ndax nee na li fekk mu ngi fi ne yu bari yu ñuy wax ci dëkk bi doomi jullit la ab julliti ko jur ci euh, lu bari jox na ay tegtal ndax boo demee pale ba tey bu ñu fa dee julli boo demee pale ba tey Euh, euh, euh, soxnaam di génn di julli ji ajuma boo demee pale ba tey lu bari di fa am loo xam ne lii war na ne tey pale bi bu doon wàllu jullit tey ji ba président Macky Sall nekkee ci boppum réew mi lu mel noonu tey la lool loolu lay soog a am waaye ñëpp xam na ne pale bi yeneen a fa daan am yoo xam ne dëpp wu tëg lii fay am léegi kon loolu ay tegtal la yoo xam ne nii mooy wan ne nit ñi li ñuy wax ak li politiciens yi jël muy sunu opposant bi di ko wax ci dëkk bi bokkut ak li am. président dafa wax ci kaw rek waaye li ci biir dëgg-dëgg feral fàccewu ko nit ñi ci danse bi nga xam ne ci mën am ci surtout suñu wàllu laal suñu wàllu diine ak dafa am ni opposant ko mi ngi koy def ñoom fi doon nan mandat ba waxatuñu ko ndax xam ne yoon lii la santaane mënu ko weesu te boo xoolee rek quelque temps ci gannaaw problème mandat bi rek la doon wax léegi loolu est ce que déggati nga ci presse bi moment bi ñu ñu waxatu lu jëm ci mandat kenn waxatu li ni wax am na loo laal na ko ci li nga xam ne moom mooy constitution bi ñu def muy wane ne am na ci ay ponk yoo xam ne lam ca nekk waxu ko ay sëriñ nit naka lay mën a waxee loo xam ne nii yéen lan bind ci këyit ya nga ne la ca ne ci biir mais mais loi mooy lan mooy loo xam dañ koy tënk ci ay kayit. la dëkk ci ay kayit nag boo bëggee ne la nekk ci xolum nit wala xelum nit loolu bokkut ak la nga xam ne moom leen bind ci ay kayit waxu ko loolu waxi la yoo xam ne nag la nga xamante ni moo ko faram-fàcce muy soo demee xam ne tomb gis mooy affaire laïcité bi laïcité mooy sax par diine chrétien jullit ak yëpp lañ yemale amatul benn boo xamante ni bii nit ki war na koo mën a pratiquer nanga ko bëggee ñoom nit ñi nekkee chrétien jiite réew mi ay jullit ànd ak moom laïcité bi mi ngi fi ci tey li ñuy wax tey mais Senghor waxoon nañ ko ci majorité chrétien yi matul sax maanaam lim bu néew ca waxoon na ko ci kenn waxut ci laïcité boobu lu tax mu di ko wax ñun jullit yi ci pourtant boobu waroon nañoo mën a xalaat chrétien gi nekk chrétien wala yeneen yi ak soxnaam nekk tamati eh, ab tubaab looloo ko indi. déglu ma rek non non Abdou Diouf bi ñëw gën ko feddliwaat jabaram nekk chrétien mu gën ko feddliwaat. mag ki jëfëru ñëw lam ci dënk dënk ko nit ñi wax ko muy dund gu sell goo xam ne ni kenn ku nekk dana am dundu gu set loolu mu tënk ko mais lam ci jublu mooy suuf si nga xam mom moom ay nit dañ koy ñëw di ko nangu ay ay tubaab ay yeneen ak yeneen yoo xam ne dañ koy ñëw di ko jënd ñu wañ na lolu na ko delloo ci nit ñi nit ñi téyel ko seen bopp momal ko seen bopp nit ñi nag jël wax jooju tourné ko ne ci wàllu góor jigéen ci lañ ci jublu déedéet tey xel ndax sëñ bi góor jigéen Maki lim tax a wax ko fii ci kanam Abouma lim tax a wax ko démb ci biir palais bi lim tax a wax ko ci sëñ Sidi Maxtaar démb ñu gunge ko ba ci sëñ euh, euh, sëñ euh, Al Amin li feeg maa ngi fiy nekk li feeg maa ngi fiy nekk la wax mbirum ko légaliser ci mukk ba di. ñu jàppal ko lu tax ñu bi nangam kase ci jamono kan lañ ko jàppoon ci bàyyi ko waaye nit ñi bu xam nga dafa am loo ñun histoire bi yëpp dañ koy dañ ñu koy téye na Mañang Kase la tudd jamono yan lañ ko jàppoon bàyyi ko ci jamono lay Wade am na keneen koo xam ne nii moom ci jëmmi boppam it mi ngi Amérique di dox ku tuddaat tur yi laay moom laa jàpp pour xel waaye waxtu yi mu toll mi ngi Amérique di dund ci jamono yan lañ ko jàppoon muy takk ay say fii ci ci ci Sénégal ñu bàyyi ko daggal ko bee mu dem Amérique ci jamono kan la Abdoulaye Wade kon tey. buñ jàppee ay nit xëy na ñu jàpp ne la lor mën na caa fekk wala rey mën na caa fekk ca nag benn du gi wax ñu dagg boppam wala leneen bu nekkee pays sérieux des am euh, wàllu islam tey loolu leneen la suñ réew mi bu fekkee ne nekkul pays lay laïcité waxuñu ko ñu war koo teg ci ponk l'islam muy sariyaam kon ku sàcc danoo war a sàcc ku rey danoo war a dagg baatam ci loolu réew mi dëpp wut ak ponk yi nga xam ne moom la fi teg moom moo fi teg man de Macky Sall mais ma toogal. mu génnee journal officiel bi jox ma waatal ma ci yàlla egg ak man ba ci ñi nga xam ne ñi ngi jël sama der di ko wax ci lu mel noonu bàyyi leen suñu borom mu ci amin euh, euh, abdou aziz amin wax day réew da ko fi bàyyi waaye diineem day continuer yowmal xiyaam it mel moom kese ci bàmmeelam bokkoo man la gëm muy doomi aadama bu toogee ba jàkkaarloo yow wax la moom man loolu laa mën a gëm loolu laa mën a téye. ndax yéen tiitu leen yéen ñi nekk affaire surtout yi nga xam na yenn kilifa yoo xam yëkkati kàddu waaw xam nga loolu naka yekk mook histoire mook ànd jaar waaye def Modou Fadal taxaw na fii ne Senghor seng taxaw na fii ne ko watiwul nga sëñ Tuubaa ndax li Abdou defal murid yi ci jamono yooya nit ñi am ñu ko wedd ñoo xam ne ànduñu ci Sëriñ Saliou mi nga xam ne day tënk ay waxam sax ba ne li may ñaan sëñ Tuubaa ak ma ñaan na maa ngi ñaan liy jeex nga ñëw eggal sànce yi ca xam ne borom xel ya la doon waxal ndax gëm na ne moo fi toogaat joxe ne ndigal wan ne moo fi toogaat am na am ni ñoo xam ne ànduñu ci kon tey ku mel ne sëñ Sidi Maxtaar sëñ Cheikh yor gi am discours boo xam ni liir nu am ay xel ñi jàngal nañ ci lu bari sëñ Sidi sëñ Abdoulaye wax liñ am na ci ñu jàngat lu bari yaakaar na ne am na ñeneen ñu wax ci dëkk bi ñoo xam ne ay mag lañ ci dëkk bi lañ wax yooyu li mu bari bari ñun ñu téye ci lañ ci téye ñun muy dute tee segam yonent bi sallallahu moom lañ ñëpp nangul suñu borom mi bindi jaam yi moom la ñëpp jàmmul ase maag ñoo xam ne nii ñu ngi président Macky Sall ñëpp mënuñu ànd ak faw mu am ñu ànd fa ne wala ñuy wax leen loolu dérange ñu ragaloo ñu tiirloo ah man de man de mane mane ma ne ma ne man de li ma jàngat li ma jàngat mooy kër goo fi dem rek am na ay opposants yoo fa ne am na ñu naan wéy am na ñu naan non naka jekk moo ko àdduna ànd xam nga loolu kon da maa wax ña wax non waaye génne woo ma ña wax yooyu ndax man dem naa kër sañ seex say ay wéy ay wéy ñoo fa ëpp ay non dégguma sax non ay nit a koy wax waaye dégguma man wéy yi laa gis ban génne ba ci bunt ba wéy yi laa gis ah dem nga naan kër sëñ Ahmadou Max euh, euh, kër sëñ Abdou Fatah sëñ Abdou Fatah war na ne mi ngi ko jàppale ak ña fa nekk war na ne ko jàppale ba génnee ay wéy lañ ci sax ab dañ la woon gisuñuy noonu ba mu ñëwee ci penku jumaa bi ñun la fa fekk ñun waa coalition TMT ñoo ko fa gis gisuñu fa ay noonu la am nag histoire ba am kër sëñ euh, kër Baye Fall ya loolu moom leneen la ñoom danoo wax leen naqari ca la nga xam ne jàll na la fa am ci ay nooy ba mu génnee ay nit a am nu mu doxalee ak ñoom ñoom ñu am nu mu gisee tax ñu wax loola loolu règlement di compte nit ak ñoom waaye du seen diggante ak président Macky Sall kon man li ma jàngat la ma gis ci ay wéy moom laa mën a jàngat la ma gis ci ay non ya ma ci gisut xëy na dox nañ ci mbedd mi gis nañ ay quelque non c'est normal dama on est waaye la ma gis ci ay wéy daal man fa ma dem fépp moo ëpp. lolu Macky ko meuna wax ndax li tax du ko meuna wax moy liggéey liggéey wo ma déet déglu wax la liggéey bi dafa dess lu bari hmm. ci Touba liggéey bi dafa dess lu bari ci Touba parce que sur le plan de communication opposition bi dafay def lu bari lu yag sur le plan de communication tamati dafa am ñeneen ñoo xamne ay responsable APR lan yo xamne ci seen plan communication danoo yàqu lu bari dama koy wax danoo se ko du ma tudd tur c'est préféré gu ma tudd pour pour le moment dama ne la sur le plan de communication ñu bari dañ ci yàq lu bari déet du ma wax lajj waaye wax naa ne sur le plan de communication dafa bari lu yàqu loolu rek diggante bu néew ñi ngi koy réparer ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy réparé kon ñi réparé boobu ñu koy def ak nekk ci terrain bi di liggéey président ñëwit yenn ci kilifa yi mu dem seet si leen wax ak ñoom loolu yaakaar naa suñu liggéey tuuti ci kanam li bëgg ci dëkk bi war nañ ko mën a am. xam nga ñun kenn nekk. ñun kenn nekk ci sunu euh, kanam wala sunu moom amul liggéey ku fi dox ci sunu moom la waxal kon kan moo war a dox sunu gannaaw man responsable la comme tout le jël sama position depuis que ma xamee politique avant PDS. depuis PS dama daan jël samay position di wax ñëpp xam nañ ne jamonoy euh, socialiste yi ñëpp xam nañ ne nekkoon naa gaynde fii di jël rajo yi di wax di jël samay position ay kilifa yu mag wax nañ ci réew mi jamono yooyu maa leen daan tontu jamonoy ñëpp xam ne dama daan jël samay position ku ci waxit ma tontu la kon tey pourquoi tey jamonoy APR ma ànd ak APR ñu ne dafa am ku ne sama wala loolu lu tax bu toogoon ki tey ci jamono tey ji ñu gis sëñ Modou Bara Dolly di wax ñu ne. am na ku ne ci gannaaw mais dama doon wax jamonoy PS di wax jamonoy PDS di wax tey jamonoy APR ndax man lu ma gëm gëm naa ko lu ma nek nekk ci lu ma rek pare naa ci man noonu laay doxee. ñu ñu ñu seetlu ni euh, président daal la. Euh, hmm. euh, gisante bi yéen. Hmm. gis nañ ñeneen jox na la ba pare jox na la oto yow sa sa bilan dund nii tey yu bëri bëri kenn nga ci ci ba président ci élection yi gis ñi saag bi jox ma saag bi xam nga ci biir lu mel noonu président dalal la président dalal na ba ma dalalee jox na ma loo xam ne nii moom laa jox essence kilifa yi diine dafa jege loolu mi ngi toll ci somme 30 million jox na ma ko Nous kilifa diine bu fa nekkon lu tollu ci 503 personnes yëkkati naa 50 000 dollars. la mu nekk limu 25 millions mu nekk limu 25 euh, millions 150 000 25 millions 150 000, 503 personnes bo len joxe kenn ku ne 50 000 mi ngi nekk. 25 millions 150 000 déedéet déedéet déedéet sëriñ bi sëriñ bi ya. sëriñ si demuñu woon ngir mu jox leen xaalis dafa am liggéey boo xam ne nii koy def ak Macky Sall gis ne ma ngi fay def dara yu ko mboolem cité religieuse sok nama ma ngay dem di ci def dara di ànd ak ñoom ji di ànd ak ñoom ci yoonu yàlla ci président yi fi jabar defuñu ko woon waaye ñun suñ goree war nañ ko delloo njukkal ci lu mel noonu suñ goree war nañ koo delloo njukkal ñun dañoo dem di delloo président Macky Sall ci gis nañ ne yi fay dem di fa def ay ay ay loo xam ne ni wuute nag yeneen yi ni doon doxee ndax lii muy liggéey ci cité religieux yi mais lu fi des ba faaw la du lu mu jox ay wala comme ni da def jox sëriñ ji ñu dikk toog seen kër na pat lii muy def moo ñu gënal fopp parce que lu nit ñi di jariñoo la ba faaw. fi ngay ah. wax lam joxoon ci wàllu essence nga ne loolu séddale nañ ko kilifa yi ba mu jeex hmm? la nga xam ne nag moyen la comme ni ñu koy joxee en tant que responsable politique di ko jox opposant yi di ko jox ñeneen ñi moom ci jëmee boppam joxe ma ko ci tubaab yi tubaab yi tegoon ci loxo gisuñu sax lu dul nuyonte nii ñu ngi gisanti Tiwaawan yëkkati na ay moyens yoo xam ne comme moyens yi politiciens yi nga xam ne opposant lan ak ñi nga xam ne tamati au parti pouvoir la nekk yëkkati na 1 million 500 3 millions jox ñu sëñ aadi si bu teewaawoon 1 million 500 yëkkati 1 million 500 ñu jox ñu ko pour ñu wàcc ci marché bi liggéey. ay gisaguñu ba léegi. ah déedéet ñu da nga ne boo génnee ci sama kër. karawaan yi tàmbali oto yi ni looyu ñu ngi koy dund ba wax. démb ci jëmmi boppam. sëñ Modou Diop kii maa ngi ne euh, carnet bi mi nga moom mboolem responsable yi wara jox café war dem ci ñoom ci ñoom séddale na leen ko mboolem it ñi nga xam ne ay responsable lañ ci war a yor pour mën cee def seen i déplacement jox na leen ba 1 million 500 yi jeex la ca des fay nañ ko ay kaar ba 1 million 500 yéen ñu joxoon jeex na ba fii ma toll man ci sama jëmmi boppam maay génne li jënd samay mooy bopp di ci jéem def pour ñu continuer suñu karawaan. kon yaakaar naa ni loolu leer nañ la limite kon foofu laa jàngat ne foofu laa jàggat ne mooy yooyu yaakaar naa démb lan toog sama kër ñu xool nan la ñu ci war a mën a def pour liggéey man ak mboolem responsable yi ma ko seqal loolu tëral nañ suñ bilan ba tey jii la suñuy caravane di fas yéene taal ci dëkk bi ndax depuis quelque temps ñaari orang nga fi ñu jox ñun ñi ngi wër di tasaare message bi nga xam ne moom moo ñu ko jàllaloo ci loolu moo doon su liggéey def nañ ko. waa léegi résultat bi su ñu suba mhm. ñu dóor leen Touba. Mhm. yéen waa APR ak ñi ngeen àndal. Mhm. léegi yéen bu waa fan ngeen may leen président lu doxal euh, campagne pour ko xam nga gi ci la wax ci biir wax wax ne la ci wàllum liggéey bi di am nañ retard lu lu ma mën lu ma mën a wax la ndax koo xam ne nii war ngaa dem liggéey boo demee ba nga xam ne maanaam lan lay jox ay kon am na tuuti retard waaye du ñu tee liggéey ndax fekk na ñu ñuy liggéey ndax ku def plateforme ay sëriñ ñi dajal ci diine yépp ci dëkk bi ñu nga tasaare leen ci dëkk Sénégal gi yépp kon yaa ngi liggéey ku wëññikuwaat taxawal loo xam ne nii yaa ngi war a def ay ay mboolem message yi président war a jàllale yépp ci journal officiel bi bi officiel bi ñu jox ñi ngi koy liggéey fii ba tey fii ba mbàkk yor fenn fu ne ña ngi fay dem kon yaa ci terrain bi di liggéey quelque temps danoo bokkut ak nag def ay caravane rek di yooxaloo ci mbedd bi ñun dafa am liggéey bu ñuy liggéey surtout sur le plan de communication moo ñu ëppal importance instant bi ñu toll parce que nit ñi bañu ñu Macky Sall waaye ci ay waxeen ak i doxaleen ci lañ ko bañ ndax du moom kon ñun ñoo war a soppilu suñ plan communication ñu ngi ko soppil ñu soppal ci nan ko ci jamono yi ndax démb ci wàllu commune bi parole dama ne nan sopparti sur le plan de communication nan ko soppati lu jëmati ci wàllu sëriñ si bu sëriñ waxee nan bàyyi sëriñ si APR ñu tontu bu benn ko xam ni APR la Nek responsable tax ngay tontu ndax commerçant bi commerçant bi ba mën wax ak moom ah avocat bi avocat mën a wax ak moom ah directeur bi ab directeur war a wax ak moom kon sëriñ sëriñ see wara a war a mën a wax ak moom ndax fa di tontu ne danañ tontu ci ay dépassement du am kon loolu buñ ko defee sur le plan de communication rek lu bari dana sensé li may tàggatoo mbokk yi di woote unité naka nak mooy sunuy wax mooy sunu slogan ñun responsable yépp nan an nekk benn parce que bis ni ki tey ñun ñoo soxla dañu ñu bari presiden wax naan président soxla déedéet ñun ke soxla parce que président bu soxlaa presiden na ni ñun ñoo soxla président bu ñun soxla kon ñun ñëpp nan bayi règlement yi nan bayi li nekk suñu diggante ku ci ku man dara ëllëg lay feeñ ndax nah, ëllëg bikin taxaw ci département bi kenn ku ne am bëgg bu boobaa la la la nekk suñuy diggante loo xam ne fa lay feeñee waaye fii ju toll lan lan soxla mooy fexe ba président lam bëgg ci wéy ji ci wéy jooju nekk njariñu Sénégal nekk njariñu ëllëg ku fi nekk nekk njariñu kër kilifa diine yi ndax tey dana waral ne sëñ Modou Bara Dolly tey bu nekkutoon APR sax bu bëggee posé candidat bu subaa mën na ko posé candidat sans mu jaar ci apart loolu ñun njariñu sëriñ si la njariñu nit ñi baax ñi nga xam bëgg na noo def politique ci bañ a ci parti di saagante ak di jotante ñu mañ beru dem loolu seen njëriñ la njëriñu nit nit ñi lay pour wan ne ëllëg ku fi toog doo di bumi da ngay xam ne 10 ans nga fa war a da ngay dem loolu njëriñu nit ñi la njëriñu Sénégal kon maa ngi woote nit ñi ñu woteel président Macky Sall ci lii mu bëgg xam ne wéy gi mu bëgg du njëriñam moom waaye njëriñu Sénégal yépp la du njëriñam moom même opposant yi di weddi sax Dono contre di weddi parce que nit ki bu la sa wujju dee sëlëm sa kanam du mën a set waaye même seen njëriñ la ñoom ñoom ñuy wax noonu kon daal maa ngi dëggal ak di woote ne ñëpp wote wéy bi mu doon njëriñul Sénégal ñu mën ko def ci jàmm comme ni ko sëñ Sidi Maxtaar digle ca dara bañ am ci jàmm wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh jërëjëf euh, Serigne Modou Mbacke Bara Dolly ci euh, laay birante bi ak euh, interview bi nga xamante ni euh, nungul nga ko seen site internet murit point info di la ndokkeel lu baax itam di sant di gërëm ñëpp ñi nga xamante ni ñoo doon ànd ñun ci di ñu bàyyi xel kon waxtaan waa ngi noonu kenn ku ci nekk nga mën cee jàng mën cee jàngate incha allah rabbi ñi ngi sant di gërëm Serigne Mbacke Dieng suñu caméraman bi nga xam ne moom lañ àndaloon wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.